sa Anne lay woo pourquoi may woo sa Anne parce que c'est symbolique cette dame a été agressée il y a quelques semaines brutalisée par des éléments des forces de défense et de sécurité bien identifiés nous avons décidé de l'accompagner elle a porté plainte mais depuis lors amul dara dara loo xam ni avancé na ci dossier boobu et pourtant dañoo jël avocat bu mag pour mu toppal ñu dossier bi loolu nag ça veut tout dire parce que c'est Absa qui va parler au nom de tous les reporters du Sénégal mais lu ma doon bëgg a attirer attention parce que yéen a ngi kontaan naan wii dañoo mobiliser wu fii amul benn mobilisation soo leen génnee ñu bokkul ci presse bi dañ fiy néew ñu fi ñëw dañoo ñëw pour couvrir ñaari groupe de presse yu mag fees nañu fii te lu nekk fii ëpp na ñaari groupe de presse tànk nag ñu ngi jàpp ni parce que fan la dooree historique boobu indi jox Absa Anne wax na ko Kambel Dieng du ma si dikkaat parce que loolu ay jamono la yàgg na Mais Makumba Bey a été attaqué, sa voiture incendiée il y a quelques mois. C'était au mois de mars 2021. Ñun ñëpp dañoo toogoon seetaan ni RFM la concerné wu ma parce que maa ngi ITV. ñu dem tuuti Cheikh Diop il est là derrière jóge TFM ñu yónni ko place de la nation il a été attaqué ñun ñëpp ñu toog jàpp ni TFM la bokk bokkul si ñun. Walf a été attaqué ñu toog seetaan Sen TV a été attaqué ñu toog seetaan le micro de la RTS ñu sànni ko ñu toog seetaan. Absa Anne a été brutalisé ñu toog seetaan parce que Seneweb la bokk ay concurrent lañ duñ ci dem alors à ce rythme li xew nii kon bettul kenn parce que bu ñu naxante suñu bopp parce que su fekkee ne rafetal naan agression yem si agression suy agressé nit da ngay ñëw agressé ko jël takkaayam jël ay saagam caabi otom yóbbu ça ne s'est pas passé comme ça ki ñëwoon tentative d'assassinat la toll ñu nag fu ñuy accuser kenn parce que ñun xam nañ ci dëkk yoon la ñu nekk am na enquête buy dem mais fee yooyu ma leen di wax donc lu yàgg ñëw la donc menaces yooyu noonu le la ñu war a xeex muy kilifa yi nekk su nguur gi parce que qu'est-ce qui se passe au Sénégal maintenant Migui va donner une information qui est exacte parce que Migui le reporter qui est sur le terrain il se limite sur des faits mais cette information là n'est pas favorable au parti de Sambou Biagui ces militants nous attaquent mu favorable parti diw ces militants kontaan jàpp ni nous sommes les moo tax may interpeller mes confrères yow yaay meilleur say naataango ñoo la ko mën a wax et non ceux qui sont à travers les réseaux sociaux parce que ñooñu lu ñu bëgg a dégg mooy lu leen neex rek nga leen koy wax alors que ñun suñu rôle mooy li may a Ndour fay di wax pourquoi ma bëgg Maïmouna parce que Maïmouna quand il reçoit Mamadou Diop Decroix qui est de l'opposition dafay comporté wu comme quelqu'un qui est du pouvoir parce que c'est normal il a pas de contradiction moo ko war a indi quand il elle reçoit parti PASTEF elle se comporte la comme ku nekkoon ci pouvoir bi c'est ce qui se passe avec Maïmouna Ndour Faye c'est pourquoi ma bëgg ko te a mooy koo xam ni bépp organi bépp activité bu ñu musa a am nous les acteurs des médias signalam la ñuy jox en direct mooy patron de presse buy rare bi nga xam ne day mobiliser pour ñun donc si on sa mobilise cet après-midi pour moom war naa mun a ëpp lii moo tax ma leen di woo parce que fa laay joxee ab sa démb si guddi avant lii di xew c'est elle qui m'a envoyé lan la ñuy waaj pour le 8 mars thème bi lan la sécurité jigéen ñi sur le terrain ñoom ak jigéen ñi taxaw si ginnaaw muy les femmes mooy seen thème bu ñu doon waxtaanee. fajar gi ba ma yeewoo itam appelam laa gis ay appel en absence woowu ma ko parce que xam naa du jàmm ndax heure bu ma woo 5 heures du matin ma dugg directement gis une femme bu tëdd deret du sotteeg si kawam. loolu même bu dul woon taskatu xibaar lu ñuy ñaawlu la le premier mars fekkoon ku ko tax a jóg xamaguñ la tax pour teer Maimouna Ndour Faye Maimouna Ndour Faye comme ma grande sœur l'a dit c'est peine que dans cette foule il y a des centaines de Maïmouna Ndour Faye des femmes et des hommes parce que dans les rédactions il y a des centaines de Maïmouna Ndour Faye des femmes et des hommes donc c'est peine perdue pouvoir et opposition nous serons là et nous allons faire face merci beaucoup